dafa jàppoon ne xadis bi euh, euh, euh, dafa am ñu ci nekk ñoo xamante ne gaa yi xamuñu leen mais en réalité xam nañ leen donc moom mu ne gaa du si côté càllale bi laay jàppee ne xadis bi wér na mais le fit que xadis bi mbooleem boroom xam-xam yi dañ ko d'accord loolu moo lay wan ne kon wér na donc moom loolu la ko jàppe mais dañuy gis ne ay boroomi xam-xam yu bare bare bare ñëw nañ wéral xadis bi bokk na ci ñi nga xamante ne moom la tudd ibnu abi xuzay ibnu xuzayma rahimahullah ak imam at-tirmidhi muhammad ibnu isa abu isa muhammad ibnu isa ibnu sawrata at-tirmidhi rahimahullah moom bi mu indee xadis bi ba pare dafa wax ne ah haada xadisun xasanun saxiixun xadis bu baax te wér a ngi xadis bu baax te wér a ngi ba pare mu ne laaj naa muhammad ibnu ismail mooy kan سالت محمد بن اسماعيل البخاري مو امام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث لا نعرف حديث بي منما هذا حديث صحيح حديث به حديث بوير لول الله وقت سنن نعم. مي بو دمي تي علال بي تي علال بي دافني هذا مانام كوم الحافظ آه، آه، آه، وحنا هذا حديث صحيح mais al alxaafis ibn rajab al khambari rahimahullah bi nga xamantene ne mi ngi chara elal bi maanaam charh elal kabir bu at-tirmidhi rahimahullah daf ne dafa taxal wax joju ci imam at-tirmidhi daal di wax ne imam al-bukhari rahimahullah daf ne hada hadithun hasanun sahihun hadith bu ba te wér mi ngi ni ibn manda wéral nako ibn al munzir wéral na tamit hadith bi ak Daara Qutni rahimahullah wéral na ko imam al Bayhaqi rahimahullah nee na xadis bi le fait que imam indi ko ci sax euh, ci Muwatta am ah loolu day wane ne xadis bi wér na Abu Dawuda aw euh, Souleymane Ibn Ash'ath as-Sajastani mooy Abu Dawuda bii euh, rahimahullah bi nekk ci maanaam bi bokk ci kàtt yi Abu Dawuda boobu rahimahullah daf ko indi ci sunanam moom ak yeneeni boroom yi xam-xam. indi ko ci seen téere yi ngir laye ko lool ak yeneeni ponkal loolu moo lay won ne xadis bi xadis bu wér la alxaafis ibna xajar al asqalaani mooy kan moo téere bi nee ci beneen téere bu tudd tahzib bu tahzib mu ne xadis bi ay ponkal yu bari wéral nañ ko bokk na ci ibnu xusayma bi ak tirmisi Euh, Ibn Manda Ibn al-Munzir at-Tahawi al-Khattabi euh, Ibn al-Jarud ah, ak euh, borom ahkamul voilà Abdul Haq al-Ishbili ak imam az-Zayla'i ñoom ñëpp wéral nañ xadis bi mu ne ak ñeneen ak ñeneen kon ñii moo xadis moom ah fikk nekku ci ne lan la ne ne ne ne ne wér na waaw donc imam an-Nawawi rahimahullah bi mu solowee xadis bi mu indee xadis bi ci bi muy shara téere bi nu mu tuddati al-Muhazzab bu imam Abu Ishaq ash-Shirazi rahimahullah imam an-Nawawi dafa indi xadis bi comme ni ko imam Abu Ishaq ash-Shirazi rahimahullah indee ba pare daane hada xadisun saxiixun xadis bi kat xadis bu wér la imam az-Zayla'i ci Nasbu Raaya tamit la même chose la wax nee xadis bi xadis bu xadis bu wér la donc euh, ñii ñoom ñëpp wéral nañ xadis bi nii waaw jarul ñuy gën a guddal incha allah ci côté boobu parce que ñoom ñëpp maanaam pour wane maanaam ne daal xadis bi wér na euh, Ibn bi mu nettalee wax bi imam at-Tirmidhi waxoon sànk mooy ban waaw bi mu ne laaj na al ne ko fat la xadis bi lan la eh, lan la mu ne ko wér na ibn abdul bar rahimahullah ci tamhid mu ne xaw ma lan moo tax imam al buxaari ne wér na ba pare indiwu ko ci saxeexam moo tax daal lii ma gën a jàpp mooy imam al jàppul ne xadis bi wér na parce que bu wéroon ci moom doon na ko indi ci saxeexam alxaafis ibn xajar rahimahullah tontu na ko ci beneen téeréem bu tuddee ak talxiisul xabiir maanaam tarxiiful xabiir mu ne loolu kenn du ko tontoo imaam al-Buxaari parce que imaam al-Buxaari bi muy bind saxee xam waxul ne xadis yu wér yëpp lay indi dafa am rek yu mu tànn indi leen yoo xam ne bu ko nit ñi jëlee dinañ mën a jariñ ci seen diine lool rek la waxoon donc kon xadis bi wér tekkiwul ne ah, taxul mu bañ ko indi imaam al-Bayhaqi rahimahullah ci maarifatu sunan wal athar moom euh, tamit la même chose la wax daf ne xadis bi moom wér la kenn moom amul lu ñu ci werante ah au a où comme ni ñu ko waxee sànq imam Malik ñoom Abu Dawud ak yeneen i euh, borom kàngam indi nañ ko niki noonu Ibnul Mulaqin ak ñeneen ak ñeneen euh, ak Ibnu Daqiq wal Ayd rahimahullah ci al imam Ibnu al Mulaqin kon ci Badrul Munir et cetera ñun ñëpp kon jàpp nañ ne xadis wér la léegi loolu moom mooy li aju woon ci degré xadis bi. léegi mu def bon amna parti bo xamne waxumako ne mu def hadith bi da ngay xamne mo xam Abu daud la wala Tirmidhi wala Nasa'i wala ibn majah wala ibn Xuzayma wala ibn Abi Shayba wala imam Ash-Shafi'i wala imam Ahmad ñoom ñëpp ak daru qutni et cetera ñoom ñëpp dañ ko solo wé ci yoonu imam Malik imam Ash-Shafi'i bi indi ci umm daf ni rek imam Malik wax na ma ne daal di nettali ñi ci des ñoom ñëpp ah, ci imam Malik lañ ko jële Abu Dawud ci Muhammad ibnu Maslama la ko jële mu jële ci imam Malik At-Tirmidhi ci Abdullah ibnu Qa'an ah, ah, ibnu Maslama al-Qa'nabi la ko jële et ñoom ñëpp noonu maanaam kenn ku ci nekk ci imam Malik nga ko jële li ma fàtte woon wax mooy imam al-Bukhari tamit solo na hadith bi ci tarikham tarikhul kabir pa ci saxe bi mais ci tarikhul kabir euh kon hadith bi ni euh imam Malik rahimahullah bi mu koy solo ci euh Muwatta da ko jëlé ci Safwan ibnu Sulaym Safwan ibnu Sulaym bok ci ponkalu bu raxooxo yu mag yi nga xamné Anas ibnu ayyad rahimahullah nee na Safwaan ibnu Sulaym moom comme Makka maam Madina la mës a dëkk moom xam nga sëriñ Imaam Maalik en général Madina la ñuy dëkk ndax Imaam Maalik Madina la ju fa la juddoo fa la màgge fa la yaroo fa la jànge fa la ah, jàngale fa la génne àdduna moom génnul Madina ah, mu ne Anas ibnu Ayyaad rahimahullah nee na Safwaan ibnu Sulaym bi gis nga buñ ñëwoon suba la yawmal qiyaam di am ak jaamu yàlla am du yokk moom ak jaamu yàlla am du yokk ni muy def rek lay def tellement mënut def lu ëpp li muy def voilà il est au top moo tax euh, imam ahmad rahimahullah ne moom euh, euh, bu ñu bëggee yërmande yàlla wàcc bu ñuy tudd turam yërmande yàlla day wàcc mu ne te sax bu ñu ba bu tawul bu ñuy tuddee turam taw asamaan ci taw bu ñu bu ñu ñaanee ci barkeem asamaan ci taw waaw mu jële ko kon Safwan ibnu Sulaym moom moo ko jëlee ci Saïd ibnu Salama Saïd Salama moom moo ko jëlee ci euh, moom euh, ci Muxirata ah euh, ibnu Abi al al al Muxirata Salama moo ko jëlee ci al Muxirata ibnu Abi Burda waaw kay moom Muxirata boobu ak sal ak nu mu tuddati Salama ñoom ñaar ñëpp an-Nasaa'i ak ibnu Hibba rahmatullahi alayhima nee nañ ñu wër lañ ñu wér lañ motax lool rek fa la yam yem nak mo ne dégg na sama nee Abu hurayra radhiyallahu anhu mu ne mu ne jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu fa qala ya rasulallah inna narkabu wa nahmilu إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء وإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من fa qala huwa at الطهور ma'uhu alxillu maytatuhum mu ne dafa am ay gaa yoo xam ne mu ne jaa a rajul jaa a rajulun am na benn waay bu ñëw ci beneen riwaaya mooy maanaam comme euh, bu attrimi bi rahimahullah euh, ak ñeneen nee nañ sa'ala rajulun dafa am benn waay bu laajte bu laajte am na ci riwaaya ñoo xam ne jaa rijaalun lañ wax am na ay gaa yu laajte yu ñëw ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu laaj ko ne ko ñu laaj ko ci mbirum maanaam ne ko inna narkabu ni ko yàqaal mu waaji ne ya rasulallah aw yonent bi yàlla bi léegi waaji nañ la tudd ci at-Tabarani rahimahullah bi mu solowee xadis parce que at-Tabarani imam at-Tabarani soloo na xadis bi waxuma ko woon mais moom bi mu ko solowee dafa euh, euh, euh, wax ne abdullah la tudd ci yeneen riwaaya ñu ne Ubayd la waaji tuddoon mais abdullahi la ah ci benn riwaaya ñu ne min banil mudlaj ci banil mudlaj la bokk waaw ah, askan la ah, ah maanam moo tax waa ji loolu la tudd Abdullah al mudliji la tudd Abdullah boobu boobu moo gën a wér ci li mu wax ah, as-San'aani rahimahullah ci al ansab daf ne waa ji al araki la tudd al araki moo tax kii nee na euh, imam an-Nawawi ak euh, euh, ci Majmu ak ki ci des nu mu tuddati imam ash-Shawkani rahimahullah ci Naylul Awtar dañ ne dañ ne waa ji dafa dafa def defle maanaam dafa jaawale parce que al-Araki du tur al-Araki mooy ki nga xamante ne moom mooy xorom gaal yi di ko graisse di di kii graisse yi su ko defee di def graisse yi suuf pour buy taw buy buy buy jaar ci kaw ci suuf voilà mais moom dafa dafa jaawale daal dafa nekk loolu tur la fekk du tur voilà dàqantal la rek ab métier la donc waa ji mais waa ji Abdullahi la tudd dégg léegi mu ne kon jaa ila rasulillah sallallahu alayhi mu ñëw ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu laaj ko ne ko yaa rasulallah ay yow yeneen bi yàlla bi inna narkabul bahra ñun di dañuy war géej gi am dañuy yéeg ci géej gi waaw <coughs> keroog El Hadj Fall mi ngi ciy wax lu am solo mu ne ñoom arab yi bu ñu waxee narkabul rek liñ ci jublu mooy dañoo affronter ay coono ci biir géej gi duñ ko wax rek pour ne rek dem nañ géej déedéet mooy dem nañ ba biir mooy comme ni Alxuraan fa iza rakibu fil bahri dégg nga voilà bu ñu demee voilà